Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du Tedegu. Notre force. Le traitement de l'info. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلو العقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضرنا بهذا المحضر ولتأتي بنا ولتأتينا بظفري بك جلدي صوبي خريدي أمدي جامي نيو بنان يون في جكر الشيخ محمد النزير الشيخ إبراهيم نياس دي جبلو جكاو بوري muy xew-xew gàmmu Cheikh Neema Nazir ci ndigalal xalifa suñ papa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim ñas mi nga xam ne tey mooy saaxibul fayda ak xaadimul umma ñu ngi koy ñaanal yàlla fanu gudd ak wér ànd ak mboolem ay rakam mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ci ndigalal imaamul akbar Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ali Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér moom te ak mboolem ak ay rakam ak mbooleem topp mi si ndigalal suñu bàyyi itam nga xam ne mooy borom gàmm gi di cheikh Mouhamadul Makki cheikh Ibrahim Niass ñu ngi koy ñaanal yàlla fan nu gudd ànd ak wér ba mu mën a taxawee gàmm gi comme mu ko daa taxawee ak mboolem ay rakam ak mbooleem njaboot gi ci ndigalal nag eh, njabootu cheikh Mouhamad Nazir ka ci bopp ba. di Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamad Nazir Niass nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamad Nazir mboolam ak ay rakkam ay magam ngi jàpp gàmmu neemo gi le 24 ak le 25 muy àjjuma ak samedi gàmmu neema kunko ca Gambia ren nag dafa am ñaari kàngam yoo xam ne moom lañ moom lañ ko tuddee ñoom lañ ko tuddee ci pays bi an mu jot dañuy tuddee ci Sénégal ak bitim réew ren nag ñu tuddee ko kilifa gu mag muy doomi pay bi muy suñ maam Serigne Mbaye mi nga xam ne gannaaw maam El Hadj lépp bàyyi moo ko def ci moom doy na rek nag luñ ko mën a tuddee mooy li ko bàyyi jox rasu rasu sax bi mooy sama mag taalibe yi moom rek moo daa wax ci turu taale bi bu bàyyi waxee kenn du waxaat wala soo waxee ba pare bàyyi rek wax kooku yàlla mayoon na ko loolu kon luñ ko mën a tuddee rek fekk na bàyyi tuddee na ko loolu kon loolu garaat la mu doon goro ci suñ baay Cheikh Mohamad Nazir nekk baayam moo jur suñu yaay Seyda Roqiya kooku tey moom lañ tuddee guddi googu ak keneen kuñ ko tuddee mooy dir al fayda nga xam ne bàyyi moo ko tuddee shérif la xam ma muhammadan waldu ba nga xam na shérif la aliwi la boroom xam-xam la kooku tim ah, goro la ci sëriñ bi Mawlana Cheikh Ibrahim ci xisse ba gudd doy na rek bàyyi jël mbubam jox ko ko jox ko tim doomam muy Seyda Mamati mi nga xam ne rakk la ci Cheikh Mouhamad Nazir kon nag garaat bu ñu ko mën a jox dégg nga ni ko bàyyi joxe garaat boobu moom ti mu nekk shérif ah bu am deretu baay loolu yaakaar naa daraat gën ko rëy kooku nag moom lañ tuddee bés bi mook suñ maam jooju sëriñ mbay ah ñu ne nag euh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbook jàmm ñu àgg faak jàmm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 بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم الحمد لله جناو بني دغلو Cheikh Mohamed Nazir ñang ñoo ngi nuyu àdduna bi yëpp di nuyu xadaratu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu xalifa Cheikh Mohamed Nazir di Cheikh Ibrahim ñu ngi koy ziare ziare mboolem ay rakkam ak mboolem taalibe yi comme ni ñu ko waxee ci programme bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a présenté ci aljuma bi aljuma bi insha allah suñu xëyee dinañu commencé jang alquran be ci insha allah fukki waxtu ak ñaar suñ fa agge dinañu préparer pour julli julli aljuma bi ki nga xamantene comme niñ ko baxo di defé at bu nek mooy imaam Abdullahi Ba ñu xam ko bu baax ci Gambia ak Nema Nazir suñu paree dinañ def ziar Cheikh Nazir comme niñ ko baaxoo di ko defee suñ fa bàyyi ko dañu dem ci bernel yi suñ fa bàyyi ko ba ca ngoon dañu del ci jumaa ji def xay xala bi suñ fa bàyyi ko daal di def li nga xamante ne mooy wasifa bi loolu mooy li nga xamante ne moom lañu ñu programme ne moom mooy xew ci aljuma bi incha allah borset war a nekk samedi <clears throat> su ñu demee ba fukki waxtu ak benn ci guddi danañu tàmbalee muxaadaraat yi nga xamante ne baaxoo nañ di ko def ci ëtt boobu nga xamante ne mooy ëtt bi Cheikh Nazir Fak fofu ñu tànn ci ay borom xam-xam yoo xamante ne Cheikh Nazir moo leen jàngal moo leen yar lépp lu nekk ci ñoom moo ko def ci ñoom ki ci njëkk mooy oustaz Ibrahima Thiam ñu gën koo xam ci Baye Koddu nekk borom xam-xam moom mooy njëkk a taxaw taxawaayu ki nga xamante ne mooy njëkk a def conférence bi ki ci tegu mooy oustaz Babacar Tamsir Sarr nekk borom xam-xam moom tamit bu ñu ràññee ci pays bi moom tamit dana ñëw def conférence am ki nga xamante ne mooy topp ci kawam mooy Xaadi Omar Seck ñu ràññee ko bu baax ci réewu Gambia rawat na ci suuf soosu nga xamante ne foofu la xew bi di amee mooy Nema Nazir ñii mooy ñi nga xamante ne ñoom lañu tànn ci ndigalu sëriñ bi pour ñu taxawee conférence yooyu ñi nga xamante ne nag ginaaw bi conférence yi pare ñoom ñooy def taaliqaat yi mooy inspecteur Moaz Bitey ak oustaz Ibrahima Ndiaye ginnaaw loolu nag suñu paree ci mu yi dañuy dugg nag ci gàmmu gi comme niñ ko baaxoo di ko defee ki nga xamante ne mooy jiite gàmmoo gi te ñëpp miin ko di ko ñaane yàlla yàlla may ko wér-gu-yaram ak fan wu gudd muy suñu waajur cheikh mahamadul makki ibnu mawlana cheikh al islam haaj ibrahima ñes loolu mooy programme bi wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila wa rahmatullahi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi naaw cheikh ñu ngi leen di ziare kenn ku nekk ci turam ak santam ci turu suñ sëriñ gannaaw suñ sëriñ cheikh ibrahim ibnu cheikh mohamad nazir ci ndigal lañuy la toogee fii ci saalu cheikh mohamad nazir di waxtaan ak mbooleem àdduna bi yëpp wax ji mooy dégg ngeen bi ñuy tàmbali cheikh ousmane fàttali nañu kan mooy cheikh mohamad nazir ci mawlud bi Cheikh Nazir moo ci topp dégg ngeen li mu wax moom tamit oustaz moom Samba Ñaan kazalika moom i tamit dégg ngeen li mu wax kon loolu jarut ñu di ci delluwaat bés bi moo toll noonu ndax borom bés bi moo moo réyee noonu ah bés bi nag ñu ngi ko jàpp le 24 février mooy bésu ajjuma bi di ziare Cheikh Mouhamad Nazir ci ëllëg sa di samedi di vingt cinq février di bësu gàmm bi ñu ngi ci on ak àdduna bi yëpp rawatina waa Sénégal waaye rawatina waa Gambie bi nga xam ne foofu la mbir mi xewee ndax ñooñu ñoo yaatal Cheikh Nazir ba mu am suuf soosu di ci jiital nag waa comité bi ndax Cheikh Nazir daf daan wax ne réew boo fi ñëwee da nga dimbale ko doomi réew ma soo bëggee am ay résultats ci réew moom loolu moo taxoon mu samp comité boo xam ne ñoom ñëpp ay doomi Gambia lañ seen njiit di seen président ñu di koo xam ci turu Mbay Dramé matte nag lool lim doon ak mbooleem équipe bi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ak ki nga xam ne mooy imaamu dëkk ba di imaam Abdoulaye Ismaila Ba moom itamit ah, kenn ku nekk xam na ko su eggee ci minbar wala su taxawee ci kanam minbar bi kenn ku nekk xam na di nga xam ne Cheikh Nazir mii الحمد لله دق دق يالله كو مانا فورمال لولو نك موي خيو خيو بيغا خامني مو خيو تي نيما نزير نيغي تي او ادنا بي ييب نيغي تي او وا سينيغال نيغي تي او بريزيدان ماكي سال دي بريزيدان دو تو لي سينيغالي دي او اي تيميت بريزيدان بيغا خامني موي ادما بارو دي بريزيدان Gambia ñu ngi leen di oo di oo njabootu maulana Cheikh Ibrahim yes yépp di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma ak mbooleem ay rakkam yépp mu ngi leen di oo ci bés bi di oo ci muqaddam yépp bàyyiwuñ kenn fépp muqaddam nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi ñu ngi lay oo ci bés bi nga xam ne mooy bésu Cheikh Mouhamad Nazir di ci oo tamit képp koo xam ne Cheikh Nazir lañ la tuddee na nga xam ne mayuñ la ngant na nga ñëw ci bés bii nga teew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 يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى Uras إنفو خباري Gao. تور Uras إنفو لنفو à temps réel. Uras Info. Djangadioukhout, Tedagu, notre force, le traitement de l'info.